كون na منتقى محمدي خير الورى مختار عند سمدي كون نبي المنتقى محمدي خير الورى مختار عند سمدي waa kër ku dégg bayit fi jib léegi muy lam yëpp du mislal Moustapha Mouhamadi ku ko dégg xam ne kat am na la xew lan moo xew borom bis bi nga ni subhaanallazi asra laylan min masjidil xaraami ila al masjidil aqsa xaadima rasul dellu wax ko naa ko surral amini maal amini fawqal lamini lilaat fiyaayi xel mu ko dégg ak no ba mu dal sam xel ko muy dem ci sëriñ Fallu Mbàkke boroom yaa faadilan faddalahul xalaaqu yaa man bihi faaraxonil amlaaqu bokk yi muy bis bi nga xam ne mooy Kazu Rajab waa daayira soppe sëriñ Fallu daayirab sëriñ Fallu Mbàkke fii ci Touba Argentine di daayirab sëriñ Fallu jëwriñ ji tudd sëriñ Fallu fii tey ànd ak Touba TV di ko yëgal mbokki taalibe yi di ko waajal képp solo mooy ci gën ci yéeme lan la sëriñ Cheikh Mat lay Mbàkke ibnu sëriñ Abdou Sis Baara Mbàkke mi fi nekk moom lañ day dara jàlle bis boobee muy bis bu rëy fu nu koy defee nag ak fu muy xewee ca centre islamique ba foofa lan ko delloo kon ci biir islam la ñu jël ko delloo ko ca ca centre islamique ca pàkkub l'islam ba kon day wàcc nanu kon nag léegi dañuy jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni mooy sëriñ Daabo mu leeral ko moom itam mbir mi na muy tëddee bu nu noppee jox Serigne Saliou mu leeral programme bi na muy tëddee jëwriñ ji nag di Serigne Fadou di Serigne Lam bu nu noppee mu ñaanal mbooloo mi waaye am lu ca xew ak lu ca bees ak loo xam ne yéene la woon yu Serigne seex ma day Mbàkke yéene woon diggan ko taalibe yi muy lan la ca gën a yéeme muy akasa sàmb dana teew ci bis boobee bis ba nag ban bis lay tombeel ajjuma lay tombeel tombeek fukki fan ak ñett ci weeru yu ñu nekk muy weeru avril kon mbokk yi dañuy jël kàddu gi rek jox ko nga xamante si mooy Serigne Daabo mu wax leen programme bi na muy tëddee bu ñu jógee ci seen Daabo dana nu jox ki nga xam mooy Serigne Saliou moom itam mi nga xam ni moo wàllum waañ wi di bàyyi faalu kër gi mu wax leen la liggéey bay bu buñ ci noppee nag jox ki nga xamante ni moo waral tool yi mooy Serigne Fallou Lam di jëwriñu Serigne Fallou. Euh, bis bi nag nii la tëddee ci ndigalu Serigne Fallou Lam jëwriñ euh, ginnaaw waxtu tàkkusaan dañuy amal njàngum alxuraan mi. buñ jullee timis ba pare ci lañuy amal njàngum kuréel yi suñ jugee ci njàngum kuréel yi dix heures fu jote ñu tex xéewli xéewal yi nit ñi xewlu ñu jox sëñ akasa sàmb mi ganu bis ba mu àggale li des ci guddi gi nii la mbir mi tëdde ñu ci woo mbooleem jullit di ci woo mbooleem taalibe bu nekk ci réew mi rekk bis boobu nga teewee ko ci barki sëriñ Fallu di ziar bu baax suñ mbokki taalibe yi ñu bokkal xidmatul xaddim bi muy bokk yi nga xam moom lañ bokkaloon e waañ wi daaw ci bés bi nga xam mooy bésu suñ fàllu bi muy màggalu kastara bi te ñu àndoon ci ci liggéey bu xam ne liggéey bu sell la te yàlla ba alhamdulilahi rabil alamin nañ ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ah, yàlla dogal ñu teewaat ko ren jiit di fas yéene ànd ci bokki taalibe yi ñu ko àndaloon daaw muy waa xidmatul xaddim bi di ci jiital sëñ Cheikh Maalaw ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci xidmatul xaddim bi rek ñu ngi leen di woo li nga xam mooy wàllu waañ wi eh, ñu koy defee nag kër abaa incha allah ci eh, la fukki fan ak ñett ci weer wi incha allah moom lañ koy defee kër ca kër aba di ci woo it soxna yi di ci jiital soxna Safi Thiam ak soxna eh, Ndey Xadi ak mboolem soxna yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi ñu ngi leen ci woo ci wàllu waañ wi te incha allah ñu fas yéene dafa togg ca kër aba di ci woo mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci xitma bi xitmatu xaddim bi comme ni ñu ci taxawoon daaw rek ba lépp rafet rek ñu ngi leen ci waat di ñaan it saa borom yóbbuñ ca bés ba ci jàmm ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilah rabil alamin di ko yëgal mboolem ku fi ne rek ñu ngi leen ko yégal lii leen sàkku seen teewaay yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan jàmm ak tawfiix ba ñu yegg ci bés ba ak jàmm ci barke borom Tuubaa. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu leen di siyaar kenn ku ne ci turam ak santam jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi mu mun taqaa Mbàkke moom Cheikh Mut Basiir Mbàkke moom Sëñ Tuubaa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko te kattanal ko te manal ko ba li mu yéene diggéel maam ci tedd ji lépp mu matale ko ànd ko ak taalibe yi ak njabootu Sëñ Tuubaa gi nekk su kaw suuf yëpp di ko ñaanal Sëñ Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal Cheikh Abo Baraka moom Cheikh mu Fadal Mbàkke moom Sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo nekk ci jataay yi Cheikh Modou Fadal Mbàkke bi te jiite ko di ko ñaanal ay rakkam ak mboolem taalib yi yëpp ak njaboot gi ginnaaw loolu ñu ngi siyaare sëñ Cheikh Matilay Mbacke mi nga xam ne nii moom moo ñu jiite fii ci Touba Argentine ñuy wax ci ndigalam di yëgle bokk euh, bisu Cheikh Modou Fadal Mbacke bi nga xam ne nii mooy Kazu Rajab di ko yëgal mbokk taalib yi nga xam ne nii ñoom ñoom ñoom ñoo bokk bis bi Euh, yëgle ak fàttali daa mënta ñàkk rek ndax lislaam moo baaxoo fàttali waaye xam na ni bis bi kenn fàttiwu ko te it ñoo bokk sëñ fàllu te sëñ fàllu moom sëñ fàllu ñëpp la ñu ko yëgal mboolem mbokk taalibe yëpp ak mboolem mbokk jullit yi nekk ci réew mi yëpp di ko yëgal jëwriñu daayira bi nga bu mag daayira fédération bi sëñ Yankoba Gueye di ci di ko yëgal moo leen bokk jëwriñ yi nga xam ne nii ñu bokk ci fédération bi yëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di yëgal bisu Cheikh Modou Fadel Mbacké Sëñ Tuubaa ñu koy def fukki fan ak ñett ci weeru avril ñu ci yëgalit bokk taalibe yi nga xam ni nii ñoo bokk sëñ Fallu ak soppe sëñ Fallu yi ak ñi nga xam nii ñëpp ci dana bokk ci kër gi di ci soññe suñ bopp di ci soññ mboolem mbokk taalibe yi ñu bokkal liggéey bi ñu ngi woo suñ mbokki tijaan yi suñ bokki laayeen yi suñ mbokki ñaseen yi ak suñ mbokki xaadir yi nekk ci réew mi ñu ngi woo ñëpp bàyyi ji kenn ñu ñaan suñu borom defal ñu fekk ko ci ànd akuk tal akuk man ak kattan ak wér te daje ci ak tawfiq Cheikh Modou Fadal Mbàkke Sëñ Tuubaa mbokki jullit yi kon bis baa ngoog ndigal laa ngoog sëriñ Fallou Lam di jëwriñ tëj na lépp bis bi nag bis bu màgg la di bis bu rëy ci diine li ko tax a yéeme mooy li nga xamante si moo di sëriñ Cheikh Mat lay Mbàkke moom lañ duppee bis bi muy loon nag mi ngi fi doog am waa kër sëriñ fàllu rek ñoo ko fi indi te it yàlla na ci sëriñ fàllu def loxoom yàlla na sëriñ fàllu téye bis bi yàlla nañ ci sëriñ fàllu may ak wér ak kartan ak yokku ak man ci barkeb sëriñ fàllu kon gaa ñi ñu ngi leen di jox ndaje fële ca centre ba ñu nag ñu xam ne bu ñu reeree ba noppi comme ni ko jaam ñi rek ñëpp waxe dana nu xaar ki nga xam ni moo di akasa samb moo nu fas yéenee téyel guddi gi ba bës set kon jërëjëfati sëñ Fallu barkeb sëñ Fallu bis bu ne sëñ Fallu juróom-ñaari sëñ Fallu ba bis ba jaam ñi libaana kawnil Mustafa rahiisa li kulli man qad faddilu ruux Muusa libaana kawnil Mustafa rahiisa li kulli man qad faddilu ruux Muusa